ahlan bikum gouvernement bu Sénégal fa def bilan fa leeral gaal ga suux ca wakaam bi ñuy amal jan ak taskatu xibaar yi ni démb la Soleil yéene kaay ñu ko xamal jëwriñ ji di Abdou Karim Fofana fa leeral ne fukki doomu aadama ak juróom benn ñoo ca faatu waaye nekkut fukki doomu aadama ak juróom-ñett déedéet ñu ne déete waaye fa am ñu doon wax naan gaal ga fa am bato bu ko mbëkk ba tax mu suux loolu du dëgg amu de te mooy yéene kaay ne Barça mbaa Barsàq mbënd mi gouvernement bu Sénégal kumba ba am ca wakaam gouvernement bi wax na fi mu toll ni lii yéene kaay na gouvernement bi kay fa yëgle ne juróomi téeméeri doomu aadama ak fanweer teg nañ leen loxo ci ñu bëggoon a dem Barça mbaa Barsàq ñeen fukk ak juróom-ñaar sa ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy encaissé xaalis bi di yóbbu gaa yi Espagne ñooñu jàpp nañ leen ba defeere leen juróom-ñeenti gaal teg nañ leen loxo ak juróomi moteur yow fa ngay xool ci ndoortelu at mi rek 195 ñu doon dem Espagne jaare ndox mi fañ leen a teg loxo 173 yëpp ay sénégalais leen ak 22 ne bitim réew lañ dëkk ak ñoo leen yóbbu Espagne ñu tegaale leen loxo ndax lu ji njaaga ñoo njaag libération na ko faala ci yokkal am na ñetti gaal yoo xam ne pare woon nañ tegu woon nañ ci ndox mi ba nar a départ waaye gars yi fañ leen a teg loxo ñaari gaal yoo xam ne ca joogo lañ leen tegee loxo ak benn boo xam ne fañ leen a dab jàpp leen ca barñi si jamono ji nga xam ne ña ngay jooy gaal ga suux ca wakaam ba ñu génnee niw ya ndeke am na yeneen ñetti gaal yoo xam ne ñoom pare woon nañ pour dugg ci géej gi direct news ne man faay laajte ana a jeexal suñ ndaw ñi de ah fa ngay xool bët bu set ak gaal gu suux ak gaal gu bees ak dem quotidien yéen a kaay ne moonte nguur gi nag mi ngi def lépp lu mu mën état bi ngir dakkal barsaak barsaak gi le regard a kaay mel ni ko ndax moom la sénégalais yi doon dem Espagne te mujj tak Maroc wala Tunisie ca naar ya yaaw fa ngay xool sénégalais yi nekk Maroc rawatina fa ñuy wax dax la seen coono foo ko natt weesu na ko benn waay bu sant topp nee na man ba àdduna tukki dootuma jéem a dem bitim réew ci anam gi nga xam ne daraa ci leerut ñu ne déeta waay sénégalais yi nekk Tunisie Sfax ñoom it fa ñoo sonno de ña fay jéem a liggéey lañ leen di fay baaxul amuñ ay moyen ba pare soxna yu jigéen sénégalais ya fa nekk fañ leen di jéem a wiyal a tëddee ñeenti téeméer nag ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci sénégalais yi fi mu toll ni kilifa yaa ngi leen di déem a delloo si sénégal bokk na ci fukki soxna ak ñetti xale alerte yéen kaay na monte gouvernement bi nag ci kàddu Abdou Karim Fofana fa xam le ne la am wakaam moom ña nga xamante ne ñoo ca mucc état bi fa leen di taxaw nga xam ne tamit seen doom ya fañ cee faatu état bi fa leen di taxaw wax na tamit ci Ousmane Sonko nga xam ne takk dara yañ tegoon buntu këram fañ leen faa jëlee ah. yow fa ngay xool fa ñoo seetlu ne fi mu toll ni Ousmane Sonko ooteetut génn leen ñu rayanteeg génn leen ñu deeg yi ni mel Abdou Karim Fofana nee na loolu moo tax ñu jëlee fa takk der ya ko doon garde laas yéen mel ni ku daan ko ah ah man faa jàpp na am na leneen lu nekk ci ginnaaw de féexal gi nga xam ne fañ koo féexal léegi Ousmane Sonko may ko jàmmam loxo Mohamed Sis buuru Maroc ma nga ca biir de donte gaa gisuñ ko nag 24 heures yéen kaay na ko voilà gis nga Ousmane Sonko moom xam nga fi mu toll a faalam yërëm yow fa ngay xool doole ji nga xam ne Pastef am na ko mbooloo mu bëri mi nga xam ne moo topp Ousmane Sonko su ko defee yeneen candidat yi nar a xëccoog moom réew mi ba moytu fële na nar a mbuqi mbuqi yu métti enquête yéen a kaay mel ni ko naan ko hé loolu nga foog rek candidat benn bokk yaakaar kooku fa mel ni xajul ci Ousmane Sonko de waaye seen problème mooy xeex bañ nekkee fi mu nii ñoom waa APR yi ci kan mooy wutu makki Nguy Njaay ñu contre Amadou Ba donte ñu ngi xeex Amadou Ba nag waaye ba léegi fi mu toll mooy favori maanaam moom lan Macky nar a tànn réew mi yéene kaay na ko voilà faa lay wax leen na fi mu toll fa ñoo jaaxle ci seen njiit li Macky Sall ah yow fa tukki woon ñu waxoon ne bu ñëwee dana tànn kan mooy ne candidat benn bokk yaakaar 2024 mu ñëw waxut ci dara ba fi mu toll nii ma fa tukkiwaat loolu moo jaaxal waa benn ak APR yi info na ko faala ci yokkal leen bu ñibbisee moom njiitëram Macky Sall weeru août wi fay amal remaniement coppite ci gouvernement bi su boobaa nag Amadou Ba su fekkee moom la tànn ngir mu nekk candidat bennoo su boobaa moom fu koy génne ci gouvernement bi ngir mu dem waajal boppam wala fajir yéen kaay na candidat bennoo 2024 bii daal man daal fa maa jaaxal ay mbir yu doy waarañ ci biir de kan la ne Macky daal ku mën a tànn na fexe daal gi nga xam ne moo ko moom moom Macky moo koy gañe mu bañ koo ñàkk source ay yéen kaay moom fa xëy di promulgation wu loi bi nga xam ne wote nañ ko ci assemblée muy parrainage bi ak créé bi ñu fi jëlee yéen bi na njiit a koy wax na ko yëf yi baax na wala baaxut naka noona tamit lu jëm ci coppite code électoral bi assemblée nationale amal boobu it faw ñu xaar ba ñu promulgué bi ba pare ña pare ca enquête bañ doon def mooy takk der ya jëmale ko ci xaalisu corona bi lañ ca tuumal ministère de la santé enquête ba noppi na ba jox nañ ko procureur les se ko yéen ñi ko xamal bopp ba maanaam ca kaso ga réew mi yéen kaay na ko Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur moom am na liberté provisoire bàyyib négandiku fay génn kaso yor yor yéen a kaay moom fa xamal ne coppite gi am ci police bu Sénégal ñi nga xam ne fañ leen a toxal ak changement yi am na ci ñoo xam ne fa mel ni fañ leen a teg ay daan tax ñu toxal leen waaye am na ci ñoo xam ne fa mel ni fañ leen a jaajëfal ndax seen liggéey bu rafet ca commissariat yéen jiite woon waa grand place a kaay moom fa ñoo xamal ne xeex wàllu ger Serigne Bassirou a jaar ko fi Sénégal jëlee mbënd inondation Touba Diallo mi ñu dénk ONAS lam digoon xalifa ba ci wàllu assainissement ak inondation daraa ca amut exclusif yéen ñu ko xamal yaaw fa ngay xool jamono ji mbënd ma ma nga fees dellu Touba ak milliards yi wax na dugal nañ ko fa yëpp source a yéen kaay na ko faala ci yokkal baal bu Ndakaaru ñoom fa ñoo nekk ci mbënd inondation ndox ma fees dell ñu ne déetewaay gerew bii su tataa yi sonal tamit askan wa bés bi yéen kaay moom fa ñoo xamal mbir mu yéeme te garaaw